salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka maa ngi fi dafa tàng rek. waaw waaw naka liggéey bi. waaw ah, mu ngi dox. salaamaaleykum borom restaurant. mbaam jàmm ngam. ah jàmm rek alhamdulilah. lan ngeen ante. am nga yaasa ginaar. ah yaasa amul wante am na maafe ak ah, suppu ah, kànja ak ceebu jën bu xar. la a nanu jimhor mafebi? Bakna, palatu mafa mafe natalechar? Ben flat fukidara. Låt oss se när det är som du ser. Vanjer, vanjer. Summa vanjer.